aouzu billahi a sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk Passy asalaamaaleykum internet yi nga xam ne nii yëpp ñu ngi bàyyi xel ci suñu station yi teew muy Passy TV ak Léegi TV. Bluetooth disconnected. Euh, yeneen station yi nga xam ne nii yëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi euh, tey jottali Passy ci lépp loo xam ne dafa jëm ci xibaar ñu ngi leen di nuyu ñëpp di bu baax euh, di nuyu bu baax a baax nag ñi nga xam ne ay naataango lañ. Euh, te ñu sabablu jotaay bi tey muy le comité de pilotage bi nga xam ne yitteem yëpp moom moo jëm ci la rénovation euh, de l'école élémentaire Passy 1 di nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di nuyu baax a baax nag kilifa yi nga xam ne yëpp ñu ngi jot ci kaddu gi te seen yitte nekk ci lépp loo xam ne rek lu mën a yóbbu Passy kanam la mënuñu dajal lépp nag mais jaar ci ñooñu ma lim rek nuyu askanu Passy yëpp nuyu tout le monde éducatif nuyu ñi nga xam ne nii ñëpp seen yitte ak seen yéene mooy euh, luy jëmale Passy kanam rawatina nag lu jëm ci mbirum éducation euh, ndaje mi tey nag euh, dañ ko sabablu woon uniquement pour indi ay gindeeku indi ay leer-leer ci li nga xam ne nii dafa jëm ci politique bi ñaal la rénovation de l'école élémentaire Passy 1 te am benn comité de pilotage bu ñu fi taxawaloon depuis 2021 Euh, ba jëm si yàlla tey léeg-léeg dafay am solo ñu jàkkaarloo ak mbooloo mi euh, waxtaan ak ñoom gindi leen yokk leen dégg-dégg ci taxawaayu comité de pilotage boobu noonu moo tax ndaje tey mi dañ koy tënk rek pratiquement ci euh, ñetti pàcc benn bi mooy dañoo bëgg a dellu si ci comité de pilotage boobu noonu li ko wundu ak tout ce qui gravite autour de sa comité ñaareelu pàcc bi dinañu ñëw ci benn question rek où en sommes maanaam comité bi ak jëmuwaayam fan la ci toll euh, ñetteelu pàcc bi moom mooy doon euh, maanaam les perspectives lan la comité boobu di mébét ñaan lépp loo xam ne rek dafa jëm ci mbirum éducation pàcc bu mujj bi nag mooy au cas où mu am lu xaw a des ndax nag euh, l'imperfection di genre humain dina tax ba duñ mun a motal lépp duñ mun a tënk lépp ndax dëgg-dëgg suñu xel xam naa ne du ko du ko mote Euh, bu ko defee nag bu amee yi ñu fàtte rek nit ñi dinañu mun a laajte ñi nga xam ne tamit ñoom laa dandal ñu sama collaborateur dinañu mun a yokkalante xel ba balaa ñu fiy jóge daal euh, suñu yéene ak suñu mébét te mooy ñu leeralal nit euh, comité boobu ak fi mu toll ci yitte yi lépp daal di leer ci daal di leer ci nit ñi balaa may tàmbali nag damay ziar bu baax ak remercier le comité de pilotage dans son ensemble rawatina ñi nga xam ne ni tey ñoom laa seqal table bi di leen wax jërëjëf

xëy mo mo tagu ci yoon daal waaw bu ko defee nag dañuy ñëw rek ci poñ bu njëkk bi muy le comité de pilotage en tant que tel euh, jeunesse am lan moo sabab mu juddu ci ñaari mbir rek lañ koy tënk lim nag jëm ci éducation benn bi mooy le fameux slogan bi nga xam ne ni moom la sunu mama jaar yetu ñaam mu ngi nii toog xàddiwul dayiwut duñ tayal di wax ci moom ndax tout le temps ñu ngi koy sentir à nos ci lépp loo xam ne rek dafa jëm ci éducation moo posé le slogan retour à l'école bi mu retour à l'école képp koo xam ne jaar nga ci école bi rek léegoo nag boo ñëwee Passy nga doxantu si ba ci école bi nga xool na nga ko bàyyee woon ak mu toll lan moo ci yokku lan moo ci wàññeeku lan moo ci yàqu kon ce fameux slogan de retour à l'école am na lu mu joué bu baax a baax ci à ah, la création de ce comité de pilotage au-delà de ce fameux slogan tamit ban tey ci ci éducation muy euh, la CERCOP coordination des élèves et étudiants de la commune de de Passy Nous doon faral di dem ci école bi di fa def ay cours de vacances ban tamit ci xarañte madame Dia miy toog ci xelam bu yaatu ci la soññee xalé yi ne waaw yéen yéen a ngi ne di ñaan di ñu classe ah di di di euh, lepp la leen soxla école bi ci def école bi ngeen koy laaj mais vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'école Qu'est-ce que vous devez faire pour l'école Quelle est la question de redevabilité de vous, étudiants ci école bi ngeen di ñëw ngeen xool que lu bëri yàqu na fi la doon seen ci taxawu école bi à l'époque Sercop ñu ngi ci ay cours de vacances euh, Moussa Moussa Sall buñ ko limee rek dañuy lim à l'époque ñi nga xamné ñepp ñu ngi doon gravité autour de ces cours de vacances euh, Moussa Sall waxtaan ak madame question boobu mu ko poser dal di dugg ci xol bi daw ci deret bi ba tax ñu ne nag faw ñu constituer benn groupe bo xamné ni da fay jëm ci lepp lo xamné rek lu mëna a rénover école bi la lu mëna a école bi la lu mëna a gañu gañu yi nga xamné école bi gañu nako ko tamit lu mëna indi ay safara ci jafé jafé yi nga xamné ne wala bok ci yàqu-yàqu yi nga xamné ne école bi école bi yàqu nako donc de ces deux pas inspiré par la doyenne la maman couveuse euh, Diary Yatouna

et monsieur Diémé ñëw ñoom ñëpp ñu ngi gravité autour de ce de ce de de rénovation de de l'école 1 euh, bu Passy donc euh, ci noonu la ñu xalaatee ne faw ñu taxawal kuréel goo xam ne nii dafay xalaat yu jëm ci jàppale école bi ndax nag li problème ci école bi yëpp benn instance mënu ko saafara municipalité bi nga xam ne ni tey mbiram la mënu ko saafara moom kese kon faw mu am une participation citoyenne su mairie bi taxawee fii peut-être bu ñu amee partenaire mu taxaw fii la population taxaw fii mu daal di nekk euh, lu mun a yóbbu école bi école bi kanam donc euh, comité boobu noonu buñ ci limee Moussa Sall lim ci ñoom Pa Mor Sylla lim ci monsieur Ndiaye mii toog nga xam ne tey ci école bi lépp luy question pédagogique moom moo ko yore lim ci jaar ñetti ñaar ak l'ensemble des directeurs yi fa jaar ak ñun ñoom Ismaïla Fall ñi nga xam ne ni ñoom ñëpp ñoom ñoo nekkoon ci première phase comité de pilotage bi parce que comité de pilotage il faut ñu identifier ñaari phase la première phase bi nga xam ne nii ñoom ñoo ko sabab ñoo ko sokke ba mu taxaw première phase boobu tamit ci la ñu xalaat le projet daal di ko tëgg taxawal ko ba sa projet la tourné autour de 9 millions lépp rek waroon jëm ci jafe-jafe bi ñu gis principalement muy les trois salles de classe yi nga xam ne tey ce sont des monuments historiques dañ fi yàgg loolu nekk fi bien avant l' indépendance ah te ñu dem vraiment ci état boo xam ne état de délabrement bo xamné wax dëgg yalla dafa dafa dafa ëpp dayoo ah yaa donc ci noonu le euh, comité boobu noonu commencé ay ay liggéeyam ci liggéey bi bokku na ci ñu élaborer le projet en question mom mo nek mom mo nek ni projet bi la ñu jëk élaborer mom moy la version une projet bi ça tourne autour de 9 millions et quelques xam nga ne loolu municipalité bi kessé wala euh, comité bi kessé pratiquement mënu ci mënu ci sori mais avec euh, une compréhension commune avec la participation citoyenne rien n'est impossible la première phase où, ce comité de pilotage tamit ci la l'ensemble des problèmes de nga l'ensemble des euh, euh, euh, délabrements yi nga xam ne attaqué na attaqué na école également les stratégies à faire pour nous montrer vers la population pour nous nga de sa participation pour nous montrer a jublu ci projet bi tourne tourné autour de 9 millions kon la première phase ci comité de pilotage bi considéré le comité nous ci participé, participer participer ci en l'occurrence le corps enseignant ci école bi la population euh, participer nañ ci ndaxte moom moo gën comité bi élaborer le le projet am des stratégies pour out ay fonds la phase de noonu toll woon ñu dugg ci situation boo euh, le comité était en veilleuse maanaam yëngootu loon ndax Covid bi dafay ñëwoon dugg ak yeneen manquement yi nga xam ne nii euh, d'abord nañu de sorte que comité bi mënutoon a yëngatu. mooy bi nga xam ne nii en septembre en septembre 2023 ci la bi des personnes bien bi bien intentionnées toujours nag di wéeru ci cours de vacances yi ñu dem di ci bokk gis ne ba léegi école bi comité bi jot na léegi ñu ñu eeyaat na ñu pëkk-pëkkal ko mu jógaat ndax taxawaayam bi nga xam ne ni moom la doon yaakaar ci moom. ban tey li waroon saafara problème bi mu ngi fi loolu nag ci ndimbalu sunu frère Pa Amad Diop mi toog ah ci la soññ ak gaa yi dem ci ñoom Ismaïla Fall dem ci directeur yi dem ci ñi nga xam ni ñëpp ñoom ñoo doon saytu comité boobu noonu ñu waxtaan gëstuwante waat soññante waat ci la ñu dugg ci la deuxième phase du comité de pilotage cette deuxième phase ci la ñu élaboré waat ci la réactualiser le projet là projet boobu ñu réactualiser pratiquement à autour de 13 millions donc on est passé de 9 millions ci la première phase du comité de pilotage bi dem à 13 millions bi ñu réactualiser ndax prix dañoo changé ci diggante bi donné yi changer lu bëri changé ci bi de sorte que millions est quelques comité boobu nga xam ne la deuxième phase ci la ñuy yaatal le comité de pilotage nous gën a ñom ñoom Bassirou le nouveau directeur monsieur le maire ah ak ñeneen qui ñeneen nga ñoo bokk gis-gis te muy rek ñu yóbbu école bi ci ci kanam ban ci deuxième phase du comité de pilotage boobu noonu euh, ci la ñu waxtaan ak kilifa yi demee ni kii la municipalité waxtaan ak ñi nga xam ne ñëpp ils sont dans le monde éducatif pour ñu gën a mun a pousser le comité de pilotage ñëpp mun a jàpp ñu mun a def vraiment vers l'objectif général bi nga xam ne nii euh, mu ngi tënku rek ci la rénovation de l'école PACI 1 loolu mooy objectif général bi comité boobu nag ba tey moom mooy daw moom moo sàkku waxtaan bi uniquement rek nag pour indi ay clarification ci lépp loo xam ne rek dafa ñeel taxawaayam waaye tamit ñeel li tax mu taxaw te mooy l'objectif général ñu dem vers la rénovation de lekkool PACI 1 bu ñu génnee nag ci jeunesse boobu noonu dañu dugg ci benn question où en maanaam comité bi léegi fan la toll ci ay yëngu-yëngoom muy pàcc bu yaatu ndax di leen fàttali ne li mu wax ci gannaaw la première phase du comité de pilotage amoon nañ un projet boo xam ne nii nekkatul d'actualité élaboré nañ un deuxième projet boo xam ne nii waxatuñ ne nekkatul d'actualité mais am na yeneen soubassement yoo xam ne nii ñoo ko sous-tendre léegi ndax euh, li jëmoon ci ñu réfectionné ñu réfectionné ces trois salles de classe yi nga xam ne ñu ngi daté bien avant l'indépendance ñu nekk ay monument historique tey booy wax ci Passy infrastructure yoo xam ne ni wala sit yoo xam ne nii existé nañ bien avant l'indépendance boo ci génnee ces trois salles de classe de l'école pratiquement dootul góomu di nga gisati Passy yu mel noonu yaa bi donc euh, ñu war a jublu nag ci politique def la rénovation de ces trois salles de classe ñëpp xam nañ ne du liggéey bu yomb ci diggante bi nag la municipalité ci la ñëw dugal ci loxoom indi sa participation kon naa information boobu yaatal nañ ko bu baax a baax muy les cinq millions yi nga xam ne nii la municipalité jagleel na ko la politique de rénovation de l'école 1 le comité de pilotage en tant que tel ci la taxaw tamit ne mbéy ci sa wewu tànk ndimbal da cay fekk loxol borom lépp loo xam ne ni yaa ko bëgg def boo ca jiitoo nit ñi dinañu gën a sawar ñoo fekk la ci ci noonu le comité de pilotage bi tamit di dajale benn sas boo xam ne dañ leen ko sas képp kuy uyewoo ci commité de pilotage bi am na benn 5000 francs boo xam ne nii gàccu na kooku tamit ban tey ci ci stratégie la bokk tamit ci ne mairie bi kese mënut a sottal lépp lu comité de pilotage mënut a sottal lépp kon faw ñu jéggaani ay ndimbal ci la yàlla def ñu dajee encore ak les partenaires espagnols yi nga xam ne ni partenaire lañ ci commune Passy di leen remercier de passage ci seen taxawaay ndax euh, wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu baax a baax ci lépp lu infrastructure te mu nekk yitey population Passy ci ndimbalu la directrice de la maison de la femme ànd bantay ak maman couveuse ñu ñëw ci école bi ces partenaires là visiter école bi yépp xool classe yi nga xam ne ñun moo gën a nekk suñu yitte xool le reste de l' école ñu ne mais yéen classe yi rek moom moo leen soxal mais école bi yépp dafa feebar les partenaires nee nañ école bi yépp dafa feebar kon école bi yépp moo laaj taxawaay mais nag ñoom ces partenaires laa fi nga xam ne nii foofu la la municipalité participer te mu war a dem ci la rénovation de ces trois salles de classe te mu nekkoon aussi la politique principal ci le comité de pilotage muy la rénovation de ces trois salles de classe le partenaire ñëw nee na ces trois salles de classe la man jël naa ko en charge kon ces trois salles de classe teggeeku na la municipalité teggeeku na le comité de pilotage mais ban tey seen responsabilité dafa des ci biir ndaxte xamal nañu ne liggéey bi du ko mën a commencé lu dul 2024 te bu demee ba koy commencé tamit classe yooyu li ko war a toj xeddi ko tasaare ko ba bërëb bi libre mairie bi la koy bàyyi boo nee mairie bi nag ne la population moo tax ñu ne mairie bi ñun moom dootuñ ko xaar ci dara dootuñ ko xaar ci dara xam nañ yéenéem xam na li ko war déjà pas yi mu commencé nii ñu ngi ñaan yàlla mu continuer donc tout le temps rek dinañu fekk ci waar wi bu ñëwee rek ndimbalam gën a gën a neex tabi kon ñetti éléments yooyu noonu là où nous sommes aujourd'hui ci le comité de pilotage ak ses activités moom mooy la municipalité am na conscience ci devoir ci école bi le comité de pilotage mu ngi continuer ses activités l'arrivée du partenaire tamit dafa ñëw gën ñu revigorer ndax fa doon laaj 13 millions bu nit ñëwee ne la gàddu naa ko wax dëgg yàlla teggal na la lu lu bare baree bari li ci am solo rek mooy fi nga doon góorgóorlu ba loolu fekk si la ci nga bañ cee bàyyi dara nga bañ a tegg sa loxo bañ a tegg sa loxo benn yoon bante la on nous en gis nañ ne cinq millions yi ñu amoon te mu jógee ci municipalité bi dafa waroon dem ci rénovation bi mais comme que le partenaire mu ngi ñëw kon ñu ne cinq millions bante nañ ko nañ ko orienté ci biir école bi ci la ñu war a dem ci bureau directeur taaral ko classe yi ñu def fa ay taxawaay mur bi jéem a xool les pans du yi nga xam ne dafa laaj taxawaay tamit ndax xëy na peut-être en sécurité ñu taxaw ci jéem a xool li nga xam ne ni mooy toilette yi tamit liñ ci mun a jagal ba les cinq millions la daal di dugg en tout cas ci biir école bi donc ne nag dootuñu def fi ñu ko jagleeloon principalement muy la rénovation de ces trois salles de classe mais ces cinq millions la resteront dans l'école à travers le bureau du directeur à travers les deux salles di bureau du directeur à travers le mur de clôture, à travers les toilettes. ban tey d'où est ñu xalaat ne école bi moo mag ci parce que cadre yu bëri bëri bëri ci école bi lañ jaar pourquoi pas ñu dem école bi ñu taaral ko fexe ba àgg à un niveau boo xam ne dañ koy peinture badigeonné ko dessiné ko def ay banc ci biir en améliorer toilettes yi ndax bu ñu seetloo cent élèves 18 maîtres 18 enseignants ñu bokk 8 boxes de toilette te ces 8 boxes là 5 ñoo fonctionnel te cinq yu fonctionnel maîtres yi ak élèves yi tegginuwul ñu fay daje ñu ne ban tey liggéey bi des na ci biir école bi kon nañ jéem a fexe ba non seulement le bureau du directeur mais école bi tey am na dimension ñu def fa benn euh, benn benn salle boo xam ne ni salle de direction lay doon ah, école bi jot na ñu am ay banc ci biir ba élèves yi génne am fu ñu toog école bi jot na mu am ay toilettes yu mot jigéen ñi fii góor ñi fii mais enseignants yi fii école bi jot na ñu pentiir ko ba mu rafet école bi jot na école bi jot na yeneen ak yeneen yu gënal yoo xam ne nii comité de pilotage bi léegi foofu la mébétam jëm ban tey deux que ci comité de pilotage bi ak yeneen ci école bi nee nañu am nañu réserve en terme de surface am na nañu teen bu ñu mun a améliorer am nañu ay partenaires yu ñu identifier pourquoi pas ñu dem ci nag propulser wala boog initier benn politique agricole en terme de maraîchage ci école bi ndax identifier nañu ay partenaires yoo xam ne nii bu ñu demee ci ñoom mun ñu jàppale école bi ba dem ci mbirum euh, en tout cas di initier xale yi théorie dend ak pratique bu ñu waree dem ci wàllum wàllum mbéy kooku aussi le comité de pilotage mu ngi koy xalaat partenaire. ay partenaires derrière arrière cours de l'école ñu mun fa initier benn thème euh, motorisé ah, mini forage mun a jublu ci loo xam ne ëllëg si biir mun na dugal école bi ci cantine scolaire mun a subvenir vraiment aux besoins de ces élèves là nga xam ne léegoo-léeg dañu ñib dañu ñëw école te seen loxo du jot seen seen gannaaw kon ci tënk daal la question de ce que nous en sommes la ñu jàpp ne foofu la ñu foofu la comité bi comité bi toll. li ci gën a am solo nag nga xam ne dinañ ko leeral balaa ñu romb ci point boobu noonu mooy que ne le comité léeg-léeg nit ñi il se pose la question comme que mairie bi mu ngi dugal loxoom ci liggéey bi comme que un partenaire ñëw na est-ce que ndax maintenant le comité de pilotage a sa raison d'être wala bu fekkee ne comité mu ngi fi ban tey lan mooy doon liggéeyam lan mooy doon jëmuwaayam kooku dafay am solo tamit ñu xamal nit ñi ne école éducation. du mos a doyal ci lu koy mën a dimbale du mos a doyal ci lu koy dooleel du mos a doyal ci luy yokk noflaayu jàngalekat yi ak ndongo yi ci biir ci biir école bi loolu rek dafa war a mën a tax comité bi continuer di exister non seulement pour école 1 mais pour tout ce qui concerne l'éducation à Passy buñ paree ci école 1 def suñ këmtalay kàttan buñ déggee problème école cinq war nañ fa mën a daw góorgóorlu fa buñ déggee jafe-jafe eh, amul sax buñ déggee jafe-jafe ndax ñu ngi interpellé partout mais fépp fu jafe-jafe am te mu soxal école bi comité bi bañ a yem rek ci école 1 mais léegoo-léeg mu gëstu école 2 léegoo-léeg mu gëstu école 3 léegoo-léeg mu gëstu école 5 ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne nii mun nañ ci indi sunu sunu partition foog naa ne kon loolu rek fondamental la pour que comité continue di di di di exister abi donc il faut ñu tëjee ce ce ce point là c'est là que le comité en est le comité continuer d'exister dina continuer di exister waaye nag di def appel di def appel à toute la population de Passy di def appel à tout les cadres yi nga xam ne ni jaar nañ ci école 1 wala boog ay patients lañ di def appel à toutes les bonnes volontés xam ne comité bi tey jëmuwaayam c'est tout juste rek dimbale jàppale école waxatuñu école 1 rek mais jàppale école tout court ci biir woote boobu tamit gis nañ Passy ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla rafetlu nañ seen taxawaay ndax lycée bi bi mu toll ci abri provisoire ay doomu Passy ñoo ko taxaw def ci lu am kattan ak yeneen ak yeneen action yoo xam ne dafay ñeel njàng mi ay doomu Passy taxaw ci comité bii nag fépp fu waay toll te nga gis vraiment de l'objectivité nga gis de l'intérêt dans ce que nous nga gis de l'avantage ci suñu taxawaay ñu ngi lay tàllal loxo pour que ensemble ñu jàppalante parce que ñu mun ko rénover ba mu nekk école boo xam ne wax dëgg yàlla ça sera une école digne de son mais les autres écoles qui sont à Passy aussi ñu mun di concourir à leur à leur difficulté pas ñu satisfaire ko à mais en ñuy sentir taxawaayu comité bi auprès des difficultés yi nga xam ne ni moom la le monde éducatif di di jànkuwanteel euh, bu ñu jàllee nag ci ñetteelu poñ bi euh, moom mooy pratiquement jëmuwaay bi maanaam les les perspectives ci comité bi daanaka junj nañ yëpp mais nañ jàpp daal ne parmi ces perspectives bokk na ci ñu renouer relation ak sunu maçon ba xam ne ñu ngi koy remercier bu baax monsieur Malick Bob ndax lépp loo xam ne nii liggéey na ci école bi dafa naan laajuma ci pay jeune ne demande pas de rémunération mais ñi nga xam ne dama leen di oo di leen liggéeyloo dafay laaj tamit lu ma jëflante ak ñoom ndax ñoom moomu ma seen doole moomu ma seen xam-xam donte ka ne nag dinañ topp sama kàddu loolu mooy li nga xam ne ni moom mooy taxawaayu Malick defal ñu tel devis laajul benn koppar defal ñu nangam laajul benn koppar kon Malick mu ngi joué pleinement sa partition ci côté bi nga xam ne ni moom la mënee ci domaine bi mu mënee muy le côté technique surtout ci côté maçonnerie yaa bi donc euh, dinañu ko sàkku Comme que la première version du projet, qui tournait autour de 9 millions, maintenant c'est caduque. La deuxième version, qui tournait autour de 13 millions, pour le partenaire la municipalité comme na kon projet bu nous Mais la mais projet bi nous xoolaat la la troisième version d'un koy accentué. nous nous un projet pour nous nous une direction à l'école un projet qui dit projet bi nous avons am des qui publics ci projet bi nous bureau de directeur vraiment digne de son nom ci biir projet bi ñu mun a àgg ci am euh, un jardin scolaire nga xam ne liñ ci séntu mooy ñu àgg ci benn cantine scolaire bu fekkee ne euh, yoon may nañu ko kon perspective yi mënuñ ko lim ba mu jeex mais yooyu noonu ñu tënk rek en collaboration ak mason bi ñu dem ci ci ci côté boobu noonu fi nga xam ne ni foofu la ñu wàcce sunu kàddu nag euh, moom mooy remerciement yi du ci gaa yi toog kenn amul seen pay Pape Amad Diop kenn amul payam Ismaïla Fall yàgg na ci lool mais jaariyatu ñaa madame Dia ku xam-xam ko ci école 1 ku xam-xam ko ci éducation te ba jël si yàlla mu ngi gunge mu ngi xelal mu ngi yaatal mu ngi mu ngi dalal suñu xel ci li ñuy def jaar te ne li cher dans son cœur moy c'est pourquoi elle est tout le temps à côté de nous Mais la rénovation de l'école 1 au moins nous gis les premiers pas germe pousser germer hein? ah ba ba muy teg bëtam ci kanekat li taxol may son mu ngi nii yàlla mi dara tawut yalla ko yalla may fan wu gudd ak wërgu yaram ba mu fekkee loolu lépp yàlla buñ def dara ci ginaawam daal lo xamné ni dafa do résultat ci li mu son diñ ci xërtal sa su nak abdoulaye Ndiaye ci école bi la bokk moo yore commission pédagogique yaa xam nañ ni mu chargé mais dañ koy poñe di ko di ko këlli këllee parce que dafa bokk ci ci ci ci ci ci comité de pilotage bi te qui qu'il soit dès l'instant que tu es dans le comité de pilotage rek amatul luñ lay épargne monsieur le maire tamit euh, euh, il faut ñu tudd ko moom it beral ko cant ak ngërëm ndax euh, mu ngi ci biir comité de pilotage bi en tant que membre mu ngi ñuy déglu mu ngi bàyyi xel bu baax a baax a baax li nga xam ne ni dafa ñeel politique gu comité de pilotage bi waaye tamit mu ngi indi xelam ak xalaatam mais aussi mu ngi indi dooleem kon ñu ngi koy jaajëfal moom ak tout le conseil municipal ak toute l' équipe municipale ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci seen taxawaay ci école bi di leen gën a soññ di leen gën a ñaax xam ne dañu ko ne l' école c' est une compétence transférée ñu gën cee góorgóorlu de sorte que école bi nga xam ne nii daal dafa war a nekk une fierté pour waa Passy dafa nekk nekk exemple dans le département lii ñu ciy mébét nii borom bi jàppale ñu ba mu ba mu antu di remercier la presse nga xam ne ñoom it ñoom lañ teew jàppale ñu pour ñu gën a mën a yaatal xibaar bi ñi nga xam ne nii tamit ñu ngi ci comité bi te xëy na nekkuñu Passy demee ni ki ñoom Pamour Sylla ñu demee ni ki ñoom monsieur Mamadou Diallo ah ñoom Pamour Sylla ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nii mënuñ leen benn daj ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax benn nag surtout man à titre personnel ci capital de confiance bi ñu investir à ma modeste personne pour mu wax à leur place te ñoom ñëpp ils en sont capables li ñu ma dënk nii donc di euh, gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, am na suñu benn maman bu waroon a teew si mooy Adja Kumba Dem Adja Kumba Dem waroon na ñëw fekkee si ko moom it dafa di maman boo xam ne nii dafa jaar ci école bi am benn groupe whatsapp boo xam ne nii ña mu bokkaloon classe wala ña mu bokkaloon génération yëpp tënku nañ ci. indi seen wàll ci école bi te loolu dafa nekk yenn exemple yoo xam ne dañu war di ko encouragé ku mel ni ki Kumba Dem dajale ses anciens camarades de ah, de classe ku demee ni ki euh, monsieur le maire sortant Pape Adama Cissé pare moom it pour dajale ses anciens camarades de classe ku ci nekk classe ba nga nekkoon nga ñëw defar ko ba mu foog naa ne loolu bu antoo dina gën a baax ci ci école bi kon Adja Kumba Dem moom it autant que ni madame Dia nga xam ne tayalu xàddiwul ci dara waroon na fi teew normalement mais dafa am tawat bu ko dab depuis démb ban moo tax teewu fi moom it ñu ngi koy beral cant di ko beral gërëm ah di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp sama gars yi xam naa ne ba lépp mot moom nous en sommes pas capables parce que nous sommes di genre humain te it euh, imperfection daf ñuy dab lu bare bare bari euh, ñu wàccee foofu suñu kàddu euh, merci beaucoup sama gars yi am na ay euh, yenn intervention yenn questionnement yoo xam ne nii euh, jot nañ ko euh, bëggoon ci dellu si rek ngir gën a gën a leeral ndax am na dix questions yoo xam ne nii bëggoon nañoo indi temps soit peu ay complément d'information li jëm ci mbirum saytu kopparu comité de pilotage bi dina fàttali ne le comité de pilotage am na un compte bancaire au CMS déjà li nga xam ne ni moom la ñuy dajale te muy tukkee ci les membres du comité de pilotage ci compte boobu noonu lañ koy lañ koy loger dama jàppul en tête comme que boobu dafa màgget jàppuma en tête le numéro de compte mais li jëm ci mbirum saytu kopparu le comité de pilotage comité bi am na compte boppam boo xam ne ni lépp lu ñeel sa politique financière ci compte boobu noonu lañ koy lañ koy loger euh, madame Dia mi toog moom mooy euh, la trésorière qui nga le président du CGE de l'école 1 mom moy le président kon ñaari signataires yooyu ñoom ñooy saytu compte bi nga xamné ni le comité de pilotage bi ubbi au niveau du CMS madame Dia ak le président du comité euh, de gestion de de l'école euh amna benen euh, intervention est ce que ndax comité de kese dina doy pour gàddu mbir euh foog naa ne sama ma wax naa ci. ci gannaaw ne ñu ngi def appel à toute la population de Passy à tous les cadres même boo nekkul sax ku jàngee ci école bi te nga nekk doomu Passy te sa doom tey nekk ci école bi wala sa doom génnee ci école bi kii kati suwa ñu ngi lay tàllal loxo bàyyiwuñu kenn appel boobu bàyyiwul kenn waaw xeebuñu même élève bi jàng sax su mënee dugal benn cent franc ci mbir mi xeebuñu ko waaw kon ñu une fois de plus à toute la population de Passy à tous les cadres de Passy à toutes les bonnes volontés au-delà de Passy ndax nag dañ rencontre ay nit ñoo ne mais sax loxo bu comité bi ñu Diallo mi nga ah, son apport est non négligeable dans le comité de pilotage euh, am kuy euh, partenaire en question ce sont des partenaires espagnols. Nous connaissons Farah. Farah est une fondation. Euh, comme c'est un qui m'a dit que c'est un mais FARA est une fondation. Nous avons la mairie de Passy est partenaire. C'est un partenariat qui est un partenaire. Quand bien avant, le maire Mambaynas, avec à l'époque Pape Adam Sissi, qui est FARA. Farah va rester avec Mambaynas. Il y a une fille avec moi. Si quelqu'un est venu d'ici les 20 ans, 30 ans, il fait avec FARA kon le partenaire Fara moom moo fas yéene dugal qui ci li nga xam ne la rénovation de l'école kon le partenaire en question ce sont les espagnols nous koy wax la fondation Fara euh, li jëm ci mbirum euh, euh, salle yi wax nañ les trois salles de classe là tey bu ñuy xool français infrastructure yi fi taxaw wala kër yi fi taxaw ñu daté bien avant l'indépendance école E moom moo ko fi amati fi suñu xam-xam toll nag xëy na bu ñu gëstu parce passé mën nañu gis mais wóor na wóor yàlla kenn daal école moom les trois salles de classe yi nga xam ne ni dans un état de délabrement très avancé ce sont des salles de classe qui datent de bien avant l'indépendance kon ñu ngi fi depuis 1947 quelque chose quelque chose comme ça li ñu ci gënal nag mooy bu partenaire bi ñëwee ñu fexe ba conserver la structure fexe ba conserver une ko ni ko tabaxee woon il y a de cela ah 40 ans 50 ans amoon su ma juulee nga jàppale ma mais 47 1947 ba léegi bu ko salle de classe taxawee soo ko bëggee rénover ah taxee na partenaire mun na ñëw ne man damay raser yépp def comme nu ma neexee mais dinañu sàkku à la limite de ba ñu conserver classe bi comme ni ko tabaxee woon à l'époque waaw l'architecture moom dinañu def suñu kéem lay kattan ba ñu conserver ko. boo ko dugg ci école bi di nga sentir une nette différence entre ces ces deux ces trois classes là et les autres classes ndax nag monument la te it ñëw raser ko noonu euh, def ko tabula rasa wax dëgg yàlla luñ ci mun suñ këntalay kattan dinañu fexe ba ñu conserver ah euh, waaw la la la la l'architecture comme ni mu meloon dans l'histoire euh, li jëm ci loxo mairie bi ci biir doxalin bi muy les cinq millions là il est vrai que gis nañu ak le maire ñu élaborer chèque joxe ko mu tasaarewu ci réseaux sociaux yi mais xam nga né chèque boo mën a dem banque jël xaalis du du du du toll quand même ah chèque lu ndaw lay doon nii rek quel que soit le montant mais bëri na c'était tout juste rek pour wolé tout juste pour gëna fessel fësal visibilité l'apport de la municipalité ci la politique du comité de pilotage je ñu design boobu maire ses collaborateurs des à comité euh, de pilotage pour signifier les 5 millions nous avons chèque euh, servir de décoration nous nous servir vraiment de de euh, les souvenirs ndax décorer bureau directeur quelque part

ñu nag avantage bi ci bëgg mooy liggéey bi na des ci waa doomu Passy liggéey bi ñun commité de pilotage tout le temps nañ mën a jóg dem di seet liggéeykat bi di xam fu mu toll léegoo-léeg ñu mën a jënd ataaya yóbbul ouvrier ya léegoo-léeg ñu mën a jënd glace yóbbul ouvrier ya léegoo-léeg ñu mën a dem laajte luñ buñ gisee lu ñu xamul ñu mën a laajte loolu moom sàkku nañ ko ci liggéey bi waaye nag duñ jot 5 millions liquide te léeg-léeg mairie bi sax li muy faral di jagleel dina am yenn TVA yi ñu ci wàññi foog naa TVA lañ ko wax quelque chose comme ça de sorte que bu dugg ci sa gafaka wala lay ci liggéey ba dootul mot 5 millions kon nañ jàpp daal ne bi doxal na ci loxoom à hauteur de 5 millions nekk lu comité bi di jot liquide mais comité bi dina ci am avantage te mooy que kii man saytu liggéey bi dina ñu mun a am prérogative di dend ak moom saa su ne ba ñu xam l'état d'avancement des travaux la qualité des travaux ak comme le la B bi apparaître conformément ak ce que ko le ak euh, ak mairie bi et la durée des travaux faites que les partenaires ils vont démarrer en 2024 le 2024 lay démarrer kooku mënula gulla le dans le carcan de telle période le ligue B paraît. mais le jëm ci rénovation de ces trois salles de classe les partenaires vont démarrer en 2024 quand en 2024 nous ko préciser En 2024 il y a tout xëy na kay ñu ñoo bëgg di topp rek di gëm ne comme que partenaire bi ngi ñëw passé waa Fara di ci di def buñ xasee ba tudd ko rek duñ ci dellu gannaaw moo xam ne muy décembre 2024 janvier 2024 fu mu ci munti doon rek nous nous sommes preneurs li ñu ci soxal rek mooy que ces travaux soient mais aussi que nag li ñu bëgg mooy sa patrimoine la ñu fexe ba ñu conserver ko intact comme ni nga xam ne noonu la ñu ko tabaxalee woon il y a 40 am na beneen bu ñëw euh, ci wutum koppar bi tey stratégie bëri nañ comité bi commencé na di cotiser ci seen biir xeetum utum koppar la bu ñu demee ba génn ci waxtaan wi ba askanu Passy yépp xam taxawaayu comité bi dinañ jublu ci ñoom ndax wax dëgg yàlla gis nañ bu baax a baax a baax jëmm yi nga xam ne nii lépp lu yittee Passy muy tawat muy naqar muy jafe-jafe ah wala muy lu mën a yóbbu parce que kanam am na ay jëmm yoo xam ne nii wax dëgg yàlla heure bu ñu ubbee woote parce que dañ leen di uyu bu baax a baax a baax a baax ca la tax ñuy woote ndax du ñu woote ci fuy faya du ñu woote ci lu amul bopp du ñu woote ci lu amul genn heure bu ñu wootee rek lu mën a yóbbu askan kanam la lu mën a saafara jafe jafe la lu mën a saafara jàngoro la waaye tamit lu mun a yóbbu ngëneel ci lépp loo xam ne rek dafa ñeel passé lycée bi gis nañ bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne nii waa askanu parce que taxaw nañ ci taa ay nit ñoo ko jiite woon kon ñooñu tamit bu ñu fexee ba ñu xam ñun li ñu dox lan la ñu ñëw bokk ci suñu biir bu ñu ubbee rek xam naa du ñu gaaw a tàggoog moom mais ba tey mën nañ bokk ci suñu politique fexe ba nga xam ne ni jàngalekat yi ñu nekk à l'aise dans ce qu'ils ce qu'ils font les infrastructures aussi de l'équipement au niveau de l'école bokk na tamit ci li nga xam ne nii euh, euh, comité bi mu ngi koy mu koy xalaat donc euh, Sercop dama ci dellu si waat suñuy lañ ah te seen taxawaay ci pas yi am solo lool rawatina nag li gën a sabab comité de pilotage bi juddu sarkop ci la bokk ñoo ko doon def cours de vacances dajee fa ak madame Dia di ko sonal ci ñaan kere ñaan kere ñaan kere madame Dia waaye yéen yéen a dafa yéen gis école bi fépp ngi toj fépp ngi xappate loolu mun ci école bi ah voilà ci noonu donc le le le le sarkop tamit dafay une prise de conscience ah jublu ci ce fameux slogan, la rénovation de l'école de Passy 1. C'est comme nous le remercions du fond du cœur, seen taxawaay yal nay jëm kanam ba ci génération bi nga xam ne ni tey ñoom ñoo nekk nii euh, la la cercle d'aujourd'hui C'est un travail naa ne parce que yëpp ko ah de sorte que daal euh, Ken amul seen kenn amul seen pay cercle daal car macha allah yal nañ fi yàgg tey jëriñ le monde le monde éducatif loolu moo fi nekkoon daal ay donc. Euh, Euh, comme comme tous les autres patients comme tous les autres patients appel bi képp ku ko dégg yaa ngi ci biir ki xamagutoon mu ngi ci biir ki xamoon di dégg mu ngi ci biir ki xamoon ba pare sax jël engagement wax nekk ci biir comme jëmm jooju nga tudd muy le maire sortant monsieur pap Adama Cissé donc di ko gën a tàllal loxo di ko xamal ne ah, kàddu yi askan bi yëpp jot nañ ci te du njortu ne comme ni mu ko waxee ba parce que dégg ko dina ci def kémtu lay kattanam moom ak naataangoom yi nga xam ne ni ñoom la bokkaloon classe boobu noonu donc di ko gën a tàllal rek ndax doomu Passy la waa Passy la jiite na Passy xam na jafe-jafe Passy xam na jafe-jafe école yi kon moom bu jëlee engagement ne classe bi ma nekkoon euh, de façon publique mu àddu ci ne dina ko jël en charge du njott leen du ñàkk ay naataangoom ya mu nekkal leen dinañ ko ci jàppale bi baax a baax a baax ñu ngi njort daal ne ah euh, ces paroles seront honorées pour l'intérêt supérieur de la communauté éducative en l'occurrence la rénovation de l'école 1 de Passy et plus particulièrement classe boobu noonu muy wax mooy classe bi nga xam ne ne moom la nekkoon di di di di jàng voilà donc muy moom ak waa Passy yëpp vraiment ñu ngi def appel à eux pour que comité de ñu gën ko dooleel gën ko jox responsabilité ci li nga xam politique am moi, ñu dem vers la rénovation intégrale de Passy 1 vraiment mu mën répondre à une école qui xamné ni da un exemple dans le département. voilà la dernière question. de l'école on am un environnement correct c'est une chose mais arriver à des résultats probants c'est une autre chose tay li nga xamné ni moom mooy comité bi école bi la na nek un environnement. ki correspond à ce que nit ki mën a jàngale bu baax a ce que élève bi di sentir nekk ci milieu bu bu convenable léegi nag les résultats li muy encombre yëpp dafay xaw a sori pouvoir comité bi ndax enseignant bi dafay dugg créer nañ un environnement correct ah bi élève bi ci wàllu boppam parents d'élèves yi foog naa ne ñoom it en terme de résultat dinañu concourir bu baax a baax a baax a baax mais aussi comité bi du taw rek di xool mais enseignant bi nekkul à la hauteur comité bi mënu ci dara enseignant bi day liggéey comité bi mënu ci dara élève bi xel mi neexut comité bi mënu ci dara mais comité bi daal li mu chargé wu muy créer un environnement boo xam ne nii képp kuy acteur école bi dina mën a épanouir bu baax a baax dinañ def suñu kéemtalaay kattan ba euh, loolu noonu tegu ci tegu ci yoon. ni ngi jot nag ne quand l' environnement est li ci mën a tegu rek mooy ay résultats ndax day doon soññe ci élèves yi day doon soññe ci jàngalekat yi day doon soññe ci kilifa école yi ba noonu mën a répercuté wu ñu mën a àgg ci ay résultats yu yu baax quoi waaw mais taxawaayu comité bi moom xam naa ne dina xaw a euh, dina xaw dina dina ko sori nag mais du am pouvoir loolu loolu ci les résultat lan lañ mën a doon mais dina mën a participer a créer des conditions qui font que résultat yi normalement dafa war a topp effort bu comité bi di def te mooy ñu mettre les enseignants mettre les élèves dans un environnement boo xam ne ni dina adéquat di gërëm ñëpp di sant ñëpp les participants ah la population de Passy tous les internautes ñu leen di remercier bu baax a baax di leen loxo pour que politique bii ñu dëgmal daal yàlla defal ñu ci ay résultats yu passe suñu njot nous vous remercions vous